fani yi bu metti depuis samedi passé moy accident bi amni ba une soixantaine de blessés sama jank bi tamet sila la bokk mu ngi université virtuelle qui deuxième année on bi la ne mu ngi tudd mu ngi tudd elle a 22 ans depuis bobo ba légui ñu ngi si ay difficulté man xëyuma gontuma sama jakarta la yor di jakarta donc euh, bi accident bi amé pour ci depuis bobu samedi bi légui ticket bi sax buy ticket ticket à 22h jox ñu ay ordonnance après si la dem fay ticket fait. sax a def bruit sax ñi ñi ticket waay waay c'est normal légui lu ñuy ñaan ci suñu nguur depuis en commençant le président ñëw ba ci ministère bi yor action sociale bi be ci solidarité bi ñu ngi leen di ñaan jàppale dimbal waxuñu ñi may ñu ñun am milieu joolaa xamuñu may ma du ñu ñaan du ñu ñaanatu ñaanuñu xaalis waaye lu ñuy ñaan mooy prise en charge bi mooy opération bi sama jànq baa ngi ne le dañ ko war a opérer double fracture la ñu ngi mu ngi hôpital régional fii la si pooj bi moo dàmma Donc, 300 000, vraiment, il faut que je ne sais pas comment je Donc, si l'hôpital peut prendre la en charge l'opération, parce que nous avons fait radio. radio c'était 14 000. Barkati Dembeuf, def nañu radio 24 000. Parce que dafa hawa gañu aussi ay kanam ni, légui les gens ont xéna bop bi un problème, waye alhamdullilah bop pas amul problème, fay nañu 24 000 waye subaateel bu nek ak waxtu bu nek mom ku ñew mom day bind ordonnance am. 30 ans il a double fracture au tibia au genou et fi dafa am déboîtement au niveau des reins là waaw. Ah. légui da nga am da nga muju woote euh, ak say mbokk fële dëkk bokk ñu jappalé waaw dama woote fale partout pour ñu jappalé ma dafa am ay xale yu góor yu ñu joggé fale village pour ñu may ko direct bi waaw. mom ban groupe sanguin la B plus. B plus mais dafa am ñaar ñu Nous am O plus les lay hôpital bi ñu bi oui dafa au niveau de Ziguinchor et c'est tout que yo waru am. les sax service bi social bi pour les 300 000, nous la 150 150 150 000 bi waaye parcours dañuy expliquer loo xamante ne ça c'est un problème d'argent yooyu lu bëre bëre bëre Mon union comprendre action sociale bi fa m'a sama waay ak sa waay la defe naa ci sama parce que am nañu fa donc bo fa amul mbokk bo amul dara mom yow di nga do am jappalé fa ñu nekk ni ay perfusion lañuy jël ay perfusion kese ñaan dimbal di ñaan vraiment ku ñu mëna a nguur solution bi moko yor té mo ñu mëna a ci solution bi sinon ñun dañuy jël malade bi dem ko kër ñi xaar yalla rek ni ko yalla di tudd rek Wa yalla kese Landing depuis samedi depuis le drame bi samedi ba amuñu faj da ngay jënd ordonnance xalé bi mbélig tank bi dañ ko wara a opérer mënuñu opérer ñu né dafa anémie amul deret bon ma dem je suis dama obligé ma yoni sama village pour amener trois jeunes pour ñu ñëw may ko bi bon ñu tombé ci accident bi ñeneen ñi dañu leen yóbbu Dakar ñun ñi fi nek yóbbu ñu suñu dom Dakar mais ñu jàppale ñu xalé ñu faj mais ba légui xalé yi amuñu faj depuis samedi bété voilà pourquoi on dañu dañuy jàkkale fu ñu nee ni te ñun ay paysans lañu amuñu dara laa ñu ñëw ñu xaalis pour ñu dugal suñu poste mais ñu faj suñu doom yi loolu mooy suñu inquiétude bi. hôpital bi ñu fa nekk bëri nañu ñeneen ñi seen tànka yi la seen loxo yi ñeneen ñi mbagg bi la ñeneen ñi baat bi la ñeneen ni évacué nañ leen Dakar donc ñii ñaan ñaanuma pour man kese maa ngi ñaan ak bépp mboolo malaat bu fa nekk ñu jàppale leen.

donc yooyu ay waxi bëre la ay kii ndax am na am amul waaye ñun gisuñu jusqu'à présent jotuñu benn dërëm te gisuñu dara moo tax bëgguma dugg si loolu bu baax parce que nit ki loo gis même boo gisul fu ñu joxe xaalis mais boo gisee quand ku ñëw jox la 10 mille ou 50 000 ne la ah am na ñi leen fi jàppale woon ou rajo bi bàyyi leen ko foofu jàppale dimbal bi ñu leen may fii mooy loolu waaye ñun gisuñu dara gisuñu gisuñu dañ koy dégg ci nit ñi waaw. fii am na ñi si jot a dem dem gisi ko waaye biñ ko demee gis lu mu leen expliquer la barki démb mu ne. moom daal lu mu fa jot jot loolu yëpp un million te un million boobu moom lañ leen jëloon prise en charge mooy premier jour bi donc prise en charge premier jour bi c'est les ordonnances ordonnances yaa ngi ne la foofu ordonnances yooyu bind nañu keroog samedi bi bu ñu ñëwee a 14 heures comme ça ñu dem passer radio, or il y 23 heures tant que tak sa def kibi bi lëmas pour ñu naan mu ko million bobu, ci ban prise en charge le ko le comme ku ak liggéeyam la moo xam mais ñun dal depuis samedi bi ont dal suñu aussi population bi fan la ñuy dem amu fi matériel keroog buy ñëwee ça y avait pas de docteur depuis samedi samedi bel lundi docteur amul xale yi amuñu faj même bu ñu dans le district de Bignona ay microchrome alcool rek naa ñu doon maase rek ambulance bu war a indi xale de Bignona à Il n'y avait pas d'ambulance. où est-ce qu'on va aller. Il faut fu ñu trouver solution rek. parce que ñeneen ñi dégg la seen cas dafa grave trop am na yoo colonne vertébrale bi la toog sa duñu mën a dañuy dëpp. am na ñoo xamante ne dënn bi la comme am na suñu benn boy waa Sinjam bi gaañu Dawda Baaji kooku dënn bi moo dóor après mu mujjee gaañu ci samedi bi ay 22 heures comme ça am na ñoo xamante ne bopp bi la kon xam nga bopp bi moom cas bu la donc xam naa ñi bëri ci ñooñu si la ñu war a bokk waaye ñun tamit ñaanoon nañu bu dee fii la ñu mun a am solution bi à Ziguinchor ba mu wér alhamdulillah bu dee euh, c'est pour évacuer à Dakar Yep, dal ñun dal nu ñu mëne am jamm rek xalé bi am jàmm vraiment delu dem jangom suñu yaakar si mom la parce que université la nek deuxième année om la nek ni vraiment bu handicapé ni vraiment day metti moy ren du jàng waaw moo dal ñu am solution moy fi muy Dakar fu ne te ñu jàppale ñuy jëleen ñu en charge kayuma ma ma Jakarta la damay taxi Jakarta di wër di dajale 300 donc awma bob xaalis waaw bala mu fay nek les nombres de jours dama koy fay dañ koy fay donc si c'est ça ñu yóbbu ko dem te kër ga ñu xaar yalla dina am ko ñu mun a yërëm jàppale ñu be xale bi am jàmm